ma xam la ak Pape Diouf ku la xam-xam la ci showbiz tubaar fakala macha allah coow li bari na ci showbiz bi wax ci bari na diggante maxu suba teel ak waa kër Waly Seck wax ci bari. waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi fay ñëpp maa ngi suyaar ñëpp di leen bégee ah di leen jox seen wàccuwaay di kontaan ci yéen ñëpp di leen wax ni maanaam man mbir yooyu sax daf ma daf ma dama ne woon du ma ci wax fi mu ne nii mais lu mënul ñàkk foog mu am parce que réew mi fi nekk man nekkuma ci ay caaxaan wala ma nekk ci ay nëbbatoog ay affaire yooyu man ku ne xam na ni lépp lu ma am ci àdduna ñàkk ragal a féete moom ma ko may te ñun dañoo judd ci ñeme màgg ba fi ñu toll nii fi ñu jaar yëpp ba xuus ba egg fi ñu egg bu ñu ragaloon tey duñ fi egg te lu ne def nañ ko ci àdduna mais lépp day ànd ak discipline ak respect tey bu dul dara man gaa yi saaga sax ay ndey ak affaire yooyu di saaga doomu jàmbur yi wala di jàpp doomu jàmbur di leen humilier wala di leen def ay mbir ñu ci bari sama collaboration ak ñoom du yàgg parce que su ma gisee ni am na benn yoon boo jël boo xam ni c'est pas normal damay dagg sama relation ak yow parce que sama image moo àndul ak image yoo xam ni ay da ngay wili pand ay nit di saaga ay nit di teg nit ay fitna di yàq deru nit di sonal ay nit man nekkuma ci yooyu parce que àdduna bi dañ naan day jeex mais jeexagul chaque jour boo xëyee yaa ngi jéem a jënd sa bopp te am na yenn mbir yoo xam ne bu ñu la ko tegee wala ñu def la ko rek pour nga génn di xool say moroomu nawle du yomb te àdduna dafa gudd tànk yéen a ngi dégg réew mi dafa jaxasoo yàqu man booy saaga ni ay ndey nii barke Seydina Muhammad billaahi wallaahi ñu ngi may dégg ku ma ci gis muy saaga doomu jàmbur di saaga ay ndey benn fan dootoo ma jot téléphone da ngay woote bay bëgg a dee ba ci booy bii ñu def lii barki démb liw faramaaren xaw ma mi ngi may dégg daf may woo ba tas du ko jël fu muy mujjee mooy Ketchup yëgoo maa ngi dama laa bëgg te yàlla tax ma bloqué ndax doo ma sonal c'est pas normal ñuy jàpp ay nit di saagay ndey ah ku mën a doon ci àdduna saaga ndey c'est pas normal c'est pas normal à tout parce que fii yaay ku ñu saaga man ku saaga sama yaay dina ma métti de mais barke alxuraanu karim billahi wallahi taalaay bu ñu dajee dangay ngay daj lu métti wala sama vie fa lay yam bu ñu dajee loolu du ko baale mais def ko nag fu la neex ci àdduna bu ma la gis wala bu ma la dégg sama yaay dama ko fonk mais ndax boo saagaa yaayu jàmbur def nañ lu ne ci showbiz dañu respecté ñëpp jox ñëpp cër def lu ne wax nañ fi lu ne waaye doo gis ñu adressé parole doomu aadama wala ñu ko di ko saaga saaga c'est pas normal te vie life bi fi mu nekk nii dafa yàqu yàqu bi mu yàqu mooy wili pendation yi nekk ci réew mi fii c'est trop te dëkk bi dafa jeexagul non lu ma de sama man xam nga musu gëj naa waxee nii seetlu leen dama dégagé wu ci affaire yu bari fu mu nekk nii nekk ci sama vision nekk sama life di dimbali sama bopp di jéem a sàmm sama image di jéem a sàmm sama njaboot di jéem a toppatoo sama njaboot ak dencal leen loo xam ne ëllëg duñ de seen bàyyi dem na bàyyiwu fi dara loolu moo jar a topp nekkuma ci yooyu. lo déggoom justice na ci def liggéeyam parce que c'est pas normal ngay fajal sa bopp wa ak ku mën a saaga ku mu mën a def lu nekk. ñoom du ñu njiitu réew mi ñoom du ñu policier du ñu gendarme c'est pas normal ñuy jàpp doomu jàmbur di ko wili pande barki Seydina Mouhamad bi ma toogee démb 4 heures du matin laa gis vidéo yi mënutuma nelaw parce que maa ngi gis ni def nañ ko sama rak wala def nañ ko sama mag sama yoon nekkul ci ay paaka ak yooyu video yooyu gisuma paaka gisuma dara li ma gis laay wax jàpp ko pandar ko à paakaat mel ni ñoom ñooy ñoom ñoo war a gérer situation réew mi ñoom ñooy fajal seen bopp te ñoom booy bi ak lu mën a jot ci àdduna waxul ak ñoom sax xaw ma kan lay waxal ku mu waxal kooku na ko lijjantil boppam na ko géral boppam ja di mais c'est pas ñoom ñooy nekk fii di faj yooyu man boo yooyu duñ ma dégg téléphone ay liw ay karank koo gis muy saaga ndey du ma dégg téléphone su ma wooyee sax du ko jël seeni message a ngi nii dañuy message ba dee du ñu gis sama retour parce que ma ci yooyu ku ci yaru dinaa jël sama image taxalu ko yow ku ci reew wala nga ñàkk taalibe wala nga foog ni yow àdduna jeex na ba pare xalaatoo ëllëg xale yu ndaw yu am ay 10 ans di saaga ay ndey war a xëyaat dundaat beneen 30 di jàkkaarloog nit ñi di leen xool seen image nekk ay image yu saagaak ay yooyu ñoom duñu xalaat loolu ñoom mais ñi leen def lii dafa ñaaw justice na ci jug liggéeyam parce que du ñoom ñooy fajal seen bopp te ñoom kenn sentu leen lii ñoo koy defal seen bopp pour lan nit ñi jox leen importance wala nit ñi fonk leen wala nit ñi am fu ñu leen teg pour lan ñuy jàpp doomu jàmbur di ko filmer di ko dóor di ko def yenn yi pour quelle raison. est-ce que loolu kese la parce que ñu tekkiwul ñu ñu tekki ñu tekkiwul dara la barke Serigne Saliou Mbacke mu Rasuul ñu tekkiwul dara la yabaate réew dañu réew parce que réew weesuwul kilifa yi nekk fi doo président de la république doo ministre doo armée doo sappeur pompier. liggéeyaloo réew mi tous defaloo réew mi dara nga naan yow yaay fajal sa bopp lii ñàkk respect suñu justice la ñàkk respect suñu réew la parce que lii ñu def nii keneen a koy gis ndax parce que chaque jour nga gis ku ñu saaga yaayam wala ñu saaga rakkam wala ñu saaga magam léegi ñooñu ñooñu ñëpp bu ñu gisee lii dañ naan xaaral ñu fajal suñu bopp bu ko defee dëkk bi fan la jëm saa c'est à régler musuma wax ci kenn lijjantiwuma kenn mais c'est à régler ni ñu koy régler mooy justice na ci dox du man maa koy lijjanti du kenn Matar Diop suba teel ku ko xam-xam ko ci dëggu ñàkkul fayda ba ngay jàpp nit di ko wax loo lenn Matar suba teel lan la sekk ak Waly Seck Matar suba teel Waly frère la mbagam la xaritam la rakam la léppam la Waly Matar suba teel moo njëkk a jël Waly yóbbu ko fële nu mu tuddati Zénith Waly boo xaree xol bi da nga ciy fekk Matar Matar dafa bëgg Waly ñoom ñëpp a yem ay xarit lañ benn la ñëw mais seytaane yu bon yu nekk fii jàpp fii di wax li ki di bëgg a wax loo booy bi pour mu wax loo xam ne pour lan booy pour ñoom pour lan ñoom ñu bëgg a jël Matar ne far force dafa bañ waali pour lan loolu Matar lan lay doyee di bañ waali Matar day liggéey yor ay booyam di leen fa di leen génnee booy di travail di am seen xaalis ñuy job affaire bi xaj na ku ne xaj na ci mais Matar amul jot boobu di yónnee ay nit nan lan saagale no man fekkeewu ma ko te musuma koo fekkee te bu xanaa kon Matar man lay njëkk a saagaloo ndey. est que du place booy yi kan moo ma ci ëpp déglu ma boo yi kan moo ma ci ëpp coow. kan moom a ëpp audience. kan moo ma ci ëpp visibilité. Matar daa soxla di woo keneen. su buggoon ku mu saaga danaan ma Ketchup saagaal ma ko te barke Serigne Bamba bu ma ko waxee dama koy def parce que sama xarit la sama nit la damaa dëggu ci loolu nekk ci moom mais tey duma ko sant parce que xam na ni loolu du du yëfi nit. du loo xam ne tey buñ boo ko defee tey loo xam ne yàgg yàgg boo ko defee c'est à voir da nga koy gis par force loo ciy def mais nañ bàyyi nañ arrêté ñu def lan liñ ma wax la ay délégué Amar xaw ma ak beneen idaal yi xaw ma kan parce que loolu laa gis loolu laa gis parce que man maa ngi dégg ci suuf délégué Amar di ki di kii idaal yi di wax ci suuf xammee naa voix am je parle avec idaal yi bu yàgg xammee naa voix moom moo doon wax ci suuf c'est lii du justice Sénégal nag fii la ñuy xamee ni yéen a ngi liggéey wala liggéeyu parce que lii mën na indi guerre attentat parce que fayantoo day bari ndax fii léegi kuñ fi saaga sa yaay wala ñu def ko seen mbir wala dara koo ci teganteeg bët da koy lekk barki Serigne Bamba Mbacke Xaadimu Rasuul lu leer laa la wax gars yi fii ñun ñoo leen gën a sécuriser fuuf ñi xam li wax nañ ko xam. du ma ndam du ma def dala man Serigne rek laa yaakaar mais gis ngeen ma ni ma wàccee sama bopp suufeel sama bopp ni suuf si parce que loolu mooy àdduna nit ku xam foo jógee fii nga jëm du la jaaxal te ñun on est sécurisé suñu neexoon dañuy def lu ñu neex ci réew mi fii barke Serigne Bamba kenn du ñu lijjantee fii am na feneen fu ñu mën a lijjantee parce que réew moomu lañ ñu naturalisé yaa ngi dégg mais defuñu ko. dañoo toog yaru dal di lijjal suñu bopp mais booy yi rebaate nañu réew nañu fuuy nañu dañuy gis doomu jàmbur rek jàpp ko di ko yàq di ko saaga ay ndey saaga yoo leen tegul fenn di sosal doomu jàmbur di ko fenal ba dootul mën a génn ci réew mi te adduna bi dafa des na mën nga dundaat beneen 30 léegi 30 yooyu ngay dundaat koo gis dangay ngay làqatu yàq sa vie ñu baree ngi dee di cancer di yàq seen adduna seet liñ leen di yàq mool ay gor lañ mënuñu maintenir yenn yi trop c'est trop c'est trop politiciens yeeg yooyu nañ ko arrêté teg ko fële te li jël suñu réew mi Macky Sall président Macky Sall laay adressé parole ak justice ak ministre de la de l' intérieur ak de la justice leen ci lii lijjanti lii mu leer nañ boo lii doyu leen gàllax ndiku une minute booy bu ci génnati wax dara doomu jàmbur ñu jël la transfert la yóbbu la kaso à vie rey nit sax moo gën di wili pande nit koo xam ne mi ngi dund ba tey di toog di xool ay njabootam di xool ay nit dootul mën a vii yàq vie wu jàmbur ba dootul mën a dox ci mbedd rey nit soxo ko gën yenn yi rafetul nañ bàyyi yi nañ arrêté lii trop c'est trop loolu laa am